asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 6 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu làmb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki nag yëglekaay bi moom tey dafa xëy seq waxtaan kii nga xam ne nii day moom moo di Double Less Double Less nag buñ ko waxee mën nañ ne waajur la ci ki nga xam ne moo di Ama Baldé nag la mu wax leer na nee na daal li am ba am doomam jii di Ama Baldé moom bu ko neexee laaj sax lu ëpp 80 millions loolu mooy wax yi ki nga xam ne nii moom moo di Double Less jàpp ne ama bu ko neexee laaj lopp lool ndax nag mérito na ko te itam nag mbër la moo xam ne nii day lees ko fay ci làmb daal jar na ko duuba lees moo xëy tey di wax ci doomam ji nga xam ne moo di Ama Baldé mu mel ni ki nag combat boobu moom fi mu nekk nii boo bëggee dégg-dëgg daal yëglekaay bi ne na négociation yi day arrêté na lig ni ko lay gisatee su ko wala ñu dégg ko boog maanaam daal fi mu nekk nii moom kon combat Modou Lo moom sunu làmb nee na mook Ama Baldé mu ngay gën di sori ñi nga xam ne nii day moo di amateuru làmb yi ndax promoteur ba gisatee su ko wala boog ñu dégg ko mu yëngatu fenn fenn moo tax sunu làmb ne daal kon jàpp leen li leer ba leer daal combat ba moom mu ngi leen di gën a sori mbër ma nga xam ne nag moom lañ ca doon wax mu war a bëreeg Ama muy Modou Lo li leer ba leer daal sunu làmb nee na ba ginnaaw ba mu nekkee roi des arènes nag démb nag association nationale de la press sportive day di ANPS tabbu nañ ko def ko meilleur lutteur bi nga xam ne ñu day moo dàq bëre gën a xarañ ci mbër ci saison bii nga xam ne moo jeex di deux mille 2018 jàpp mille 2019 Modou Lo daal la ñu tabb loola mu mel ni ki nag fi mu nekk nii kon li leer ba leer day ginnaaw roi des arènes am nga am na leneen loo xam ne kon fekk si waat na ko moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day Modou Lo fi mu nekk nii day moom la ñu tab mbër mi dàq bëre ginnaaw nag loola fa mu ko jëlee nag yëglikaay bi nag ci kaw Eumeu Sène ma mu daan ndax moom moom daaw moom lañ ko joxoon moom Eumeu Sène Modou Lo daan ko nangu roi des arènes ba ñu tabb ko mu mel ni ki nag loola bañ ko defee itam am na keneen koo xam ne moom boole nañ ko ca ci wàllum làmbi simple ji muy mbër mi nga xam ne nii day mooy général Malika dëkk ca Malika tab mbër mi nga xam ne nii day wàllum li simple bi son bi nga xam ne moo jeex mooy ki ci dàq bëre gën cee xarañ mu mel ni ki nag ginnaaw ba loolu amee moom général nag mu ngay wax moom jàpp na ne day li ko may loolu xëy na lenn la rek liggéey bi nga xam ne def na ko daaw waaye rawatina tamit drapeau sur le ba nga xam ne dem na wone fa boppam bu baax a baax a baax mu mel ni ki daal moom général ndam loolu noonu la ko jàppe jàpp na itam lu koy gën a yokk daal la ngir mu gën liggéey mu mel ne nag ka ko yore moom di kilifaam di daaw de sumaare na na li leer ba leer lii neex na lool waaye ne ca kaw nag yomb na waaye des sa moo jafe nee nag la leen fay tax a des moom moo di liggéey te danañ ca nekk bu baax a baax a baax maanaam daal liggéey ba ñu xam ne ñoom liggéey nañu ñii moom boo bëggee dégg dëgg seen ab liggéey la mu jur maanaam résultat ya baaxul muy waa école de booy gànjool yëglikaay bi ne day ñaari victoire la ñu am ak sept défaites mu mel ni ki daal ñoom moom dañoo xàllaw li ko ca kaw rek daanu jël bu méttee méttee métti ca suuf waaye nag ci gën a métti mooy seen ma nga seen mbër ma nga xam ne moom lañ doon wax caatu Bambey tamit mu génn daaw àddina kon loolu tamit nekk na loo xam ne lu métti la woon école booy gànjool boobu nga xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci tey ci résultat yi nga xam ne am nañ ko te résultat waaye nekk ay résultats yoo xam ne yu doy a doy waar la waaye leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne nii day moom moo di ca fi nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb mu mel ni ki nag promoteurs yi daal li leer ba leer seen diggante ak ñi nga xam ne nii day ñoo di waa CNG ba moom loo ci mën a dégg daa mel ni nag am na ay doléances yoo xam ne joxoon lañ leen ko juróom-ñaar la yoo xam ne nii day yëg li na li nga xam ne nii day moom moo di promoteur yi amuñu ca ndam ndax nag ñoo yore làmb jë muy Alioune Sarr ak ñi mu dañoo rejeté la nga xam ne nii moom lañ leen loon maanaam daal ànduñu ca mel ni ki tamit démb ñoom promoteur ya ministre bi dalal na leen waaye daal lam leen wax moom nee na gudd mu gàtt mooy arène nationale mooy bëriwukaay bi leen kuy tëgg moom boo yeboo xam ne fa nga jëm te li leer ba leer itam boo fa jëmee lañ daan fay dong ngay fay mu ne su caa wàññi dara yëglikaay bi xëy ñëw wax nu ko kii moom daa am ku mu bëgg a jël teg ko ca kaw làmb ji wane ko muy mbër mu mag a mag muy jéen kayre ka ko bëgg a def nag moo di roog mbalax mu mel ni ki nag moom daal ginnaaw bañ ko dénkee nag léegi ne ko yaay entraîné sumba jun daal ambition ya mu am daal ni daal wane bu baax a baax a baax xale ya mu yor rawatina ku mel ni Diène Kaïré ñu ne ko sa diggante ak Tapha Guèye mu ne Tapha Guèye moom sama maître la sama sëriñ la ci wàllum làmb rog ma la moo xëy tey di wax lu mel ni kii noonu waaye ba tey itam li leer ba leer daal bu nu demee ci Leewtoo point général Malika tamit mu ngi fay wax li nga xam ne nii day moom la am ci wàllum làmb ji li nga xam ne raw na ko mbëri yëpp sànni karawaas ga na ca seen kaw mu mel ni ki Modou Lo tamit moom itam raw ba mu raw it mu nga fa nga xam ne nii day mooy ca Leewtoo point kon daal li leer ba leer jàpp leen général Malika Modou Lo ren wala at miy jeex ñooy ñaari mbër yi nga xam ne bu dee làmbi dóor moo doo ca teg tànk di roi des arènes ñu ne ko yaa fi dàq bëre bu dee làmb simple général Malika ca raw teg fi tànk ñu ne ko yaa ci dàq bëre ci saison bii jeex kon nag saison ubbi na ñu xool ñan ñooy nekkaat numéro un ci wàllum làmb ji. waa Leewtoo TV di leen nuyu di leen gërëm sant leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën si àddina bi rek di leen si yaatu leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom. Babacar tey nag ñu ñëw si euh, jàngatu arène bi ak sunu lamb Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu commencé ak sunu lamb sunu lamb nag tey dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Double Less Double Less su mu ko déggee muy Papa Balla Gaye ak Sa moom daal nee na euh, Ama Baldé combat bi nag combat royal bi ñuy laam-laamee fan yëpp nee na moom d'accord na Ama Baldé 80 millions yu mu laaj. waaw maanaam sax moom mën na laaj sa lu ko ëpp sax bu ko neexee loolu la lees wax wax lees nag mën nañ ne mooy kilifa wu Ama Balde tey actuellement parce que yaakaar naa ku ne xam ne diggante lees ak Fallaye Balde tey nag bu yàlla defee na ko yàlla yërëm taxare ko aljana moom bépp doomu aadama bépp julli bu tëdd ci suuf loolu moom bu taxawee ne tey doomam di Ama Balde am na droit laaj 80 wala sax lu ëpp 80 yaakaar naa tamit mooy li ma waxoon rek mbir moom li si nekk nday kumba lenn la yaa ngi dégg problème de kuy jaay ak kuy jënd lii laay ja lii laay lii lii laa lii laay jaay nga ne lii laa mën a fay pour man ci phase boobu la ñu toll ku ci ne muy promoteur bi ñuy dégg muy Luc Nicolaï wax na li mu man wala boog li ñu dégg ne moom la ñu wax nit ñaa ngi koy dégg Ama ak staffam li ñu dégg tamit ñoom moom la ñu bëgg lii la bu buñ ci déggoo combat bi am bu fekkente ne mënuñu cee déggoo tamit ñoo xam ne mënuñu cee déggoo mais loo ci mën a dégg fi mu nekk nii moom ah waxu Ama Baldé na loo xam ne nii daal fi mu nekk nii dama naan combat tey bu doon ni promotion la la ci borom doon wut balaa mu koy taxawal jàppal na am na ci promotion 100 pour cent moom. Babacar dafa mel ni promotion boobu mi ngi commencé euh, yàgg te aussi amateur yi ngi siy commencé sonn parce que euh, nee ñu Luc daal ba mu annoncé la couleur wax ne d'accord na ak kaawu Modou Lo dafa mel daal affaire dafa ne kale dafa kale kàkk ndax moom déggatul ñu mu wax ci combat bi euh, ñoom Ama Baldé aussi moom la ñuy xaar daal Babacar ki nga xam ne mooy Luc Luc daal maanaam waxee ba tey kenn gisaatu ko ba fi mu nekk ni combat jàpp ne mu ngi gën a sori maanaam daal boo sàgganee man lépp mën na faa doxee tàbbi géej ah xëy na nag lig moom ñàkkul xëy na li tax déggatuñ ko xëy na dafa bëgg li tubaab bi wax reculer pour mieux sauter xëy na looloo mu tax mu mu mu arrière ne teg xam nga olof na ne boo nee teg teg wan la aw yoon xëy na daa bëgg ne teg pour bu jógaatee bu ñëwee bi yoon discussion ba bañ a yàgg xëy na moo tax xay na mu toog benn place noppi parce que tamit combat la boo xam ne yàlla wax ji yàgg na weer a ngi nii wax Ama Baldé sax ak Modou Lô na ay weer wax dañoo war a bëri dañoo war a bëri du tey ne jubóo nañu ko waa kër Modou doon ñoom bañ doon wax nag ñoom ñooy bañ mu des ci côté Ama promoteur ba gisatuñ ko kon lig ngi lay nuyu di la ziar génnaatal nga ñëw wax ci combat bi ndax amateur yi soxla nañ ko te bëgg nañ nga tëgg combat bi ki nga xam ne moom moo génn wax moom mooy Badajon Badajon na soo leen ko déggee moo nekk si staff ki nga xam ne mooy Tapha Tine moom daal nee na dafa affaire daal xamul lu mu koy nuroo ndax ki nga xam ne mooy Luc Nicolas ñëw na ba waxanteeg ñoom ba ñoom tàggoon nañ si ay d'accord nañ si ay kàddu des woon lu lul euh, joxe xaalis moom daal mu mu ne mu réer leen mër ko moom daal <laughs> affaire daal neen xamul daal lu mu koy nuru daal ah, doy na waar de jon day gis nañ ko ci vidéo tey ci suba ci Leewtoo TV dafa naa ne moom wax na fa ba ne xaaw comme ni ko olof yi di waxee ndax bu balaa Luc Nicolas sax ci Modou Lo la ñëkk dal si koom parce que nee na Modou daa bëgg lu yomb moom loolu la jàpp parce que nee na nanguwut a jël ñi nga xam ne nii ñoom la ko làmb boole day seet lu yom te ne sax moom mooy laaj Ama Baldé parce que daa jàpp ne jàpp na ne moom Modou loo daa jàpp ne Ama Baldé lu yomb la ci moom moo tax mu di ko laaj waaye côté ligue itam wax na ci jàpp na ne ligue ñëw na ci ñoom wax na ak ñoom ba ñu wax ko prix ba déggoo ci prix ba ñu ne ko indi bi na ci lañ mujj a gis loolu nag wax yi bada jonn la muy loo xam ne daal ku dem ci Leewtoo TV tey di nga fa fekk vidéo lu bare bare bari bada jonn concerne Tapha Tine Ama Baldé Modou Lô ak sax Babacar nag ñeneen ñi nga xam ne làmb aussi da leen yitteel trop muy promoteur yi ñoom euh, semaine passée euh, mën na deux semaines dañu demoon gis CNG teg fa seen seen sept doléance démb nag CNG da leen woowaat pour restituer seen jox leen seen réponse maanaam daal CNG doléance yu sept doléance yu promoteur yi euh, waxoon yëpp pour làmm ji mun a mun a mun a neex si ñoom CNG daal lépp la xotti Babacar. waa kon daal boo bëggee dëgg-dëgg maanaam ñaxtu yañ doon ñaxtu ba jébbale ko pour ñu utal leen ci saafara saafara ji mujjul saafara mujjul faju waaw parce que bu fekkente ne dara faju fa ñëw nga indi juróom-ñaari jàngat juróom-ñaari jooytu ñu jàngat ko pare la kat lii amuñ ci solution kon xay na mooy loolu ah man nag li may wax rek promoteurs yi moom encore une fois tout le dama naan ñoom ñooy bayru làmb ji yaa ngi dégg war nañ leen di gestu di leen jàppale di leen may loxo pour que tamit ñuy mën di mën di tëgg mbër yi ndax suñu tëggul làmb du am wala boog ba ñu xamee làmb ba tey gisaguñu kenn ku fi tëgg làmb ku dul promoteur yi bu fekkee téeméeri làmb am na moom 99 yëpp ñoom ñoo ko tëgg kon defe naa li leen di dooleel ba ñu mën a tëgg tamit c'est normal waaye doléance tam mën nga koo bind te doléance ba est-ce que dina méngoog liy arrangé ñëpp yaa dégg loolu tamit lu jara xool la CNG tamit ña fa nekk liggéey moo leen fi bàyyi pour man ak lu doxal làmb kon defe naa ne daal li am solo mooy muy waa ñiy jiite làmb ak ñiy tëgg làmb ba tax làmb di am ñu xoolaat waxtaanaat pour gën a trouver ay terrain d'entente li nga xam ne nii dina tax mbir yi gën a mën a jëm kanam ndax ñoom bu ñu xëccoo rek wala ñu werante rek dina am ci ñoo xam ne du baax si ñoom rawatina mbër yi nga xam ne tey ay mbër yu ndaw lañu war a jóg te promoteurs yi tëgg leen lañu yaakaar Babacar nag promoteur yooyu nga xam ne seen njiit mooy Pape Abdou Fall bu ñu jógee xam ne mooy ministère des sports da wuti wàllu xel na si ministre Matar Ba mais daal dafa mel ni Matar Ba daal il est en phase avec le CNG ndax moom nee na leen arène nationale lañ ko def pour làmb kon boo làmb bu fi munti am fa lañ koy tëggee Babacar waaw arène nationale de pour làmba tax ñu def ko waaw loolu lañ ñu wax te defe naa itam actuellement loolu moo ci amagu moom lañ ci gis ñu ko fay def buñ ne pour làmb nag maanaam parce que dañ doon jooytu arène ba ñu tabaxal ñu ko arène bu seer a seer comme ni ñu ko waxee tey nag bu ñu jógee CNG amuñu fa solution maanaam seen euh, seenu kii faju fajoo fa seenu seen i jafe-jafe ñu dem ca nga xam ne mooy lif ñëpp muy ministre ba yore sport ba foofa tamit mu mel ni moom dafa déggoog la CNG wax na leen daal làmb ji mënta génn ren arène nationale bi ah loolu tamit day mel ni kon olof ne na waxtaan na neex borom kër comme ñoom ministre bi moom mooy borom kër yi te ne foofu la mbir yi mën a amee ñoom promoteur yi man li ma leen di wax daal mooy bu fekkente ne mënuñu leen wàññi esat wala nangam ak nangam mbir yi moom du lu pour man olof ne def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw képp ku xam ne tëgg bi arrangé wu la foofu ci nañ ko waxee conditions yi mënoo ko réunir arrangé wu la yaa ngi dégg te loolu la ñu dagg ne mooy am bu keroogee pour man nga taxaw bàyyi ba bala yàlla dimbali ba nga mën ko parce que itam bët du yéen waaye xam na lu bopp attan yaa ngi dégg sama bopp mu la gënal nag du bañ naa waaw loolu am na solo suñu jógee nag si sunu laam nañu dem fi nga xam ni mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ni ñuy xamal ni que démb ANPES dañ doon génnee euh, meilleurs lutteurs yi nga xam ni euh, ñoom na gën a euh, xarañ si si làmb ji si saison bi nu génn maanaam lutte avec lutte lutte avec frappe Modou loolu lañ jël pour la deuxième fois su fekkee nag lutte simple bi nag Général Malika moo succédé ak ki nga xam ne mooy Franc waaw loolu de am na solo trop parce que bu ñu nee meilleur lutteur ci wàllum làmb dóor ñu jël Modou Lo parce que moom moo gagné waa des arènes bi daaw ci kaw Eumeu Sène kon yaakaar naa tamit du ñu mën a def lu dul loolu waa ANPS def ah ñu rafetlu ko et puis félicité ci tamit Modou Lo parce que tamit comme li ñuy wax rek mbër la bi nga xam ne wax dëgg yàlla parce que moom lañ nominé am si làmb ku ne seetlu na ko et puis tamit fonk na li muy def te vraiment boo ko xool di nga xam ne sportif vrai la parce que li muy def du ko caaxaane donte nag sport moom mënoo dëkk ci ne da am ay ndam des nga am ndam des nga am défaite des nga am match nul wala victoire wala wala yeneen kon yaakaar naa daal tey buñ ko nominé loolu ah, xam ne nii moom lañ jàpp ne mooy li am kon félicitation à Modou Lo rawatina Rock Énergie ak supporter am yëpp ñu ngi leen ci félicité mais tamit côté général Malika tamit loolu tamit yaakaar naa tamit lu ñu war a mën a nangul ndax defe naa daaw fekk nañ ko ci àll bi man ak yow mii ci ay zone yu baree baree bari mbappat yu ñu fa teg mu jël ko dem Jeux africains yi nekkoon fa francophonie yi amoon Côte d'Ivoire keroog moo defe naa moo nekkoon pile de cent bi wane fa boppam ñëwaat ci drapeau chef de l'État tamit ñu nominé waat ko fa mu wanewaat fa boppam kon defe naa moom tamit loolu yëpp suñ ko dajalee kon dama naan daan waa ANPS moom yaakaar naa man sama xalaat mooy juumuñ général vraiment daaw def na saison boo xam ne fëyee falaam la kon ñu leen di féliciter ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk li nga jël noonu que pour man lu ñu mérito la daal Babacar si kàddu leen di tàggoo di leen jox di daje suba incha allah si yoonu gàmm bi Tiwaawan euh, balaa boobu muy nuyu sama yaay mère Sow di nuyu euh, Mouhamed sama doom di nuyu Dadi dina ñu nuyu Astane ne déjà depuis Parcelles depuis Kaolack parce que moom tamit mi ngi waajal gàmm bi chéri Khadija Diall di nuyu samay doom maam jaara Penda bébé Fallou Moussa Junior ak ki nga xam ni mooy bébé Rokhaya Aïcha Faye ak euh, Aïda Diouf yaa ngi si biir. waaw di nuyu ñëpp ni nga ko waxee gàmm gi moom ñuy ñaan dugg ci bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te lu ñu fi ñaan rek fu ñu ko mën a ñaane yàlla na ko yàlla nangu Tiwaawoon nag ñu ko waxee fa la ñu jëm ci kàttan suñu borom mais di ñaanal xalifa ba fa nekk muy Serigne Ababacar Sy Mansour yàlla na fi yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko barke nekk ci réew mi yépp parce que Sénégal rek li may wax dama gis yoo xam ne ay image yoo xam ne si gàmmu gi yu jar saluer gi laa ko njëkk a gis bi màggal jotee ma gis gaa ñi di dem Touba di màggal ñi jaare ci yoonu Tiwaawoon bi ma gis ñu tuddee seen bopp soppay Al Amin ay ñam ak ay ndox di ko jox ñi ñi di ko xéewloo loolu defe naa mooy Sénégal ma gis bërki dem Medina Baye Baye Fall yi takkandaayu di bale mbedd ya di raxas ma gis tamit Tivaouane Kër ci zawiya bi nit ñi génn di jox ñi doon def ay kii ay ay ay lekk ay ñam muy ñoo xam ne nii tamit mooy bi muy doon ko defal foofu taalibi Tidiane yi ak bale dëkk baak yooyu yëpp mu mel ni kon Sénégal daal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar yaa ngi dégg li ñuy wax daal mooy man moom loolu laay wax di ko wax gis nga complexe mooy lan li nga moom nit ñëw bëgg laa jaay loo xam ne yow xamoo ko moomoo ko nga jaay complexe di ca topp nun Serigne Touba la ñu am maam Alaaji Malick maam Limaamu maam Bu Kunta Njaasaan yaa ngi dégg Serigne Ceneb ak ñu me mag ñooñu la ñu am ak sunu mbokk kere chrétiens yi loolu nag nan ko téye ba mu dëgër am ci fulla jàpp ci olof ne na yenu jàpp caa gën a wóor mag du dangam talu yooyu wóorul nanu jàpp ci li nu am di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm di wax ne rek maa ngi nuyu tamit soppe yi seetaan ñoom Ngañ Sow ca États-Unis borom Touba car rapide maa ngi koy nuyu Sorom Gomis maa ngi koy nuyu mu ngi ba France di nuyu képp kuy suivre Leewtoo TV à travers le monde ñaanal ñëpp jàmm. ba suba incha allah.